accusation yi ñuy porte ci yow euh, con concernant le conseil constitutionnel accusation yi PDS porte ci yow ne yow yaa gàllankoor candidature Karim Wade euh, ñenn ci seen ñooñ à l'époque ba ñuy wax ñu ne euh, Amadou moom moo téye conseil constitutionnel bi et que loolu la ko président mere lan ngay tontu ci loolu. xam nga ñàkk xam état ak ñàkk xam ni institution yi di demee. bokk na ci liy andi wax coow yu bëree bëree bëri conseil constitutionnel juróom-ñaar lañu chance bi ñu am ñoom bu ñu xasee ba dugg juróom-benn at lañu fay def dañuy am mandat chance boobu la ñu am te it balaa nga fay dugg dinañ la seet seetatal seet la bu baax a baax a baax ña fa dugg ñëpp président moo leen fay yóbbu moo leen fay dugal. mais bu leen fa dugalee sax moom mënatu leen fa génne kon ay jiw dafa téye conseil constitutionnel mooy da nga téye institution bi téye juróom-ñaari magistrat yi mooy mun xam nag loolu ay wax yu caaxaan la dëgg na xibaar ce qui s'est passé avec le conseil constitutionnel mën naa la wax ni ñi nekk ci conseil constitutionnel presque xawma leen ay presque xawma leen kenn laa ci xam te du xam bi tax ñuy wax ñuy xam muy le président te bi ma koy xam di dajeeg moom il était président de la cour suprême man ma nekk ministre des finances cest à moom doxoon na carrière ba mu jeex parce que cour suprême foofu daanaka la magistrature yam man dem naa ba nekk ministre des finances te li ñu boole woon liggéey la parce que convention de financement boo signé il faut nga am avis juridique yu cour suprême or ñoom loolu du seen liggéey principal donc ci noonu laa ko xamee muy nit ku baax euh, xaw ma fan la dëkk moom moom xamul fan laa dëkk mais on se connaît on euh, am na ci man respect affection et je le lui rends bien maintenant la muy liggéey mu ngi koy liggéey du ma ko ci influencé man aussi la muy liggéey maa ngi liggéey du moom moo ci influencé et l'accusation la plus grave jëmale ko ci ay magistrats surtout yi toll ci grade boobu moo ñoo xam dañoo dem ba jeexal ak seen carrière mooy accusation corruption ñooñu nga rey leen sama moo leen ko gënal c'est-à-dire que moi je ne peux pas être un haut fonctionnaire dem di corrompre keneen ci loolu jamais ça n'a pas sens ñooñu booy def ak ñoom walla ngay wax ak ñoom leneen nga war a wax lu dul ay accusation de de de de corruption ensuite pour gagner quoi même si c'était possible lan nga ciy gagner bon résultat laa ci am gàllankoor Karim quoi moi j'ai teg je suis candidat lii dëgg mooy man man maa wax samay avocat seetal leen ma candidat yëpp mais c'est de la politique du bañ Karim du euh, bañ Diomaye wala euh, beneen candidat bu mënti nekk Serigne Boubou Boubacar Camara j'ai demandé dañ ma defal dañ ma xoolal candidat yëpp biñ ma ko xoolalee euh, pour le cas de Karim Wade j'ai vu que kii mi ngi ci doon wax d'ailleurs Thierno Alassane san donc ça c'était pas nécessaire pour moi ma gis le cas de Diomaye et de Cheikh Cheikh Tidiane Dièye là j'ai fait faire des recours c'est moi-même qui ai demandé à mon avocat de faire des recours et l'avocat a fait des recours à mon nom mais pour tous les autres j'ai pas fait de recours donc il y a pas de problème et malheureusement pour le recours concernant Diomaye j'ai été débouté bon ça c'est décision souveraine de justice man amatuma ci commentaire biñ bi conseil constitutionnel joxe àtteem laa génn ci dossier bo mais je pensais je pensé que waruñu woon euh, bokk parce que faut pas oublier que le déc le décret qui a dissous le PASTEF man maa ko consigné en tant que premier ministre donc je devais être logique et conséquent avec euh, avec avec, avec moi-même maintenant pour tout le reste Maintenant, c'est de, c'est de la fabulation. Élimination, Karim, vous n'avez rien à voir avec ça. Mais, mais euh, de vin dont on parle, mais vous n'avez rien à voir avec quoi? ça. Les de vin, il faut qu'on faut qu'on faut pour quel résultat Pour nous éliminer Karim Non. Karim, potentiellement, on peut faire alliance. Vous n'êtes qu'un candidat. Euh, il serait deuxième ou premier ou troisième ou cinquième. Je serais... j'aurai mon rang et puis peut-être après on va se retrouver et nous partageons, et c'est franc et c'est profond, nous partageons euh, beaucoup de, de choses. Hein. Malheureusement, bon, il y a malentendu, toujours, qui continue euh, de, de, de persister. mais xëy na bés dina ñëw yi fi mais est-ce qu'avec ce malentendu yaakaar nga ne mun nga jot toujours ci soutien wu. Euh, parti démocratique sénégalais ndax kat nee nañu euh, le dernier mot revient à maître Abdoulaye Wade dinañu joxe li nga xam ne moom mooy seen position. mais euh, bon je pense que aujourd'hui fi réew mi toll li ñu gën a soxla mooy à mon avis une alliance globalement pour préserver la République pour sauver la République jàppale na loolu la ñu gën a soxla au-delà des problèmes crypto-personnels parce que état dafay toll foo xam ni du yëfu nit du yëfu Massamba yëfu Mademba yëfu Amadou Ba wala yëfu Karim wala yëfu Maymouna c'est c'est jàpp naa ni c'est pas c'est pas ça lii dëgg dina ma sa feeñ ça vivement que mu feeñ en tout cas moi je vraiment que mu feeñ maintenant je pense que ñu nekk PDS effectivement on partage des valeurs et il est bon il est tout à fait normal on se connaît très bien que ñu am pas ay soutien moi je suis je wax sax waxi soutien moi je parle d'une alliance d'un globalement parce que réew mi foofu foofu la toll réew mi aujourd'hui il faut des consensus forts au niveau du pays ñu ñi war a ànd ànd ñi mën a ànd ànd pour fexe ba gën a sàmm réew mi gën a aar réew mi et je pense que man ci loolu laa woo en tout cas tous les acteurs politiques euh, ñi nga xam ni gën nañu état gën nañu démocratie et naturellement le PDS en fait partie